ñoo gën a lam de julbeeri ñooro rey nag ki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami abdu buukar

seetaan seen chaîne bii di xam sam réew TV am na nañu mbégte lool fa yéene ànd ak yéen ci seen émission xam sam réew ni ñu ko defee fan yi jàll yépp dem ci barab yi nga xamante ni bii waa Sénégal ñu bari dañ koo umpule te nu bëgg waa Sénégal xam ko loolu moo nu indi tey fii ci Mbamba Ngiraan Mbamba Ngiraan am ñuy wax Mbamba Njëgéej ndax dafa am ñaari Mbamba dafa am mbambataal gu nekk Kajoor moo tax ji nekk euh, fi nga xamante ni bii mooy njëgëj ñu di ko dakkental mbamba njëgëj waaye dëkk gi nu ñëw ci dëkk bi nga xamante ni dëkk bu yàgg la dëkku cosaan la dafa am lu nu fi xañtu di ko topp loola mooy lan mooy lii dox sama diggante ak ki nga xamante ni moom laa fas yéene dalal muy tama joo xamante ni bii moom la ñuy wax jingo jingo nag defe naa ni ci pël mooy loxo e, nu fas yéene ànd ak moom ngir ñëw ci li nga xamante ni bii mooy e, mboorum tama ji nga xamante ni doon nañ ko daan nañ ko tëggal Lat Joor waaye mel na ni tama ji moo jiitu Lat Joor ndax wax nañ ma ni Maroso Diop moom moo ko euh, yettul woon Maroso danañ ci ñëw ndax mooy waajuru soxna Coro Diop Maroso mi waajuru Serigne Balla Coro ak Serigne Cheikh Coro kon danoo ñëw tey ngir fas na xamale ak jéngo yi nga xamante ni euh, li tubaab di wax pièce rare la ndax la Joor ba mu fi bàyyi ko ak léegi léegi mu mat téeméeri at ak ñeen fukk ndax atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn la Lat daanu ci deqale mbokk yi kon dana fas yéene ànd ak yen ngir xamale leen ak jingo mi nga xamante ni moonu indi tey fii ci Mbamba Ngiraan mbokk yi kon ki ma war a seqal waxtaan wi mooy Serigne Malle Ndaw moo war ñëw ngir wax nu mboorum jingom yi kon sëñ euh, male dama bëgg rek nga nuyu ñi lay seetaan te ñëw ak nun wax nu euh, tama ji nga xamante ni daanañu ko tëggal Lat Joor te mooy jingo fa mu jaar kañ lañu ko sos ba mu egsi fii salaamaaleykum yéen yéen mbokk yi jungo euh, jungo mii nag Maa Roose Jóob moo ko yettalu woon ak menn ndënd moo muñ tëggal moo xaye eh, moodu mbenn mais ci sagata abba mbuub la ko maa rooso yettu lu woon ñaa eh, ñoom ñoom mook mm-hmm. ah, tama ju ndaw la maam màlle maam màlle daan daan tëgg foofe ci sagat màlle ngiraan màlle ah, ngiraan mm-hmm. di ko fa tëgg di ko tëgg ba mu yàgg maa roosu na ko màlle di mën ngaa tëgg lool waaye tama jii tuut na dama laa bëgg yettu loolu tama mama mama mama mama lay dem di ma ku mën tama ba fekk a benn seeñ seeñ bi ne ko mën ma maa yett tama de mun ko tama ji kat tama ji kat bargeeta ko yettulu tamay bargeet nag ku ko yettulu war a war war war koo fonk ma law ba euh, seeñ ba di ko yett yett tama ja yegg mu dikk yett si ko mamal mal mu jox ko mamale Ma malediki, yetsi yeti ko ma uh, ma maroso nako nako nako tama jang ni ko male luy for tama ji mu ko ñetti gatt mu yek mu yekati ñetti gatt jox ko a abba mbuub ki yoru ndënd mi di tulli ma male nako luy for ndënd mi mu ko ñetti gatt ñetti gatt moy ñetti xar wala ñetti bëy ñetti xar ñetti xar ñetti bëy mhm. mu dindi juroom benn bay jox leen maam maa lay indi tama ji fii ci mbamb foor tama ji ba mu yegg mu demaat sagat ndaa maam maam moo roos maa roosa na ko maa la tama ji mu ne ko dama la doon tëggal ci tama ji ndaw ja ab ba ba nga yettulul ma tama ji kon nag tama ji sama jungaa ma ma ko may sama loxo sama loxo ma ko may te tama ji tama ji loxo a koy tëgg te lakkat dafa ni jungo jungo laa ko tudde mooy jungo jungo laa ko tudde ma ma bu doon amu sant Jóob lay sant Jóob waaw tax maa maa hmm. moo ko yettulu te la sant waaw kon euh, mu mel ni mbokk yi ni ngeen ko déggee euh, sëñ euh, sëñ Màlle Ndaw hmm. wax na ni tama ji Maroussa Diop moo ko yettul woon euh, kan mooy Maroussa Diop Maroussa Diop turam dëgg-dëgg mooy tase yande waagaan moom euh, waajuram daf doon barak ca waalo xam nga dañuy wax ni kajoor Lat moo fi doon euh, dammeel te santul Fall ndax la ko dale ci Déthié Fo Ndiogou ba ci Lat Joor dameel yëpp Fall la ñuy sant moom Lat Joor nag yaay moo sant Fall waaye moom Jóob la sant kon euh, dameel yi Fall lañu daan sant benn dameel lañu ñu mës a am mu sant Jóob waaye bu ñu demee Waalo itam lu mel noonu xew na fa ndax barag yi nga xamante ni ñoom ñoo daan yirif Waalo mbóoj lañu ñu daan sant waaye benn barag ngi boo xamante ni Jóob la sant muy barag kuli mbabba Jóob barag kuli mbabba Jóob mooy wayjuru Maroosa Jóob moom barag euh, euh, kuli mbabba Jóob nag doomi barget Lat Joor la muy Lat Joor mu mag ma nga xamante ni bii moom la ñu tuddee Lat Joor Jóob mi doonoon dameel ci Kayor moom nag maroso ba mu nekkee ak waajuram ndax baayam doon na juróom-benni at barak ca waalo li ko dal ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn muy 1806 ba atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñaar muy atum 1812 moom moomu dëkkoo woon na ndate yàlla ndate yàlla mooy waajuru euh, Sidiya ndate yàlla marosa Diop dëkkoo woon na ko ba ni nga xamante ni ba amoon na jafe-jafe ak Ndaté Yàlla ak doomam Sidiya te ñu dem làqu ji ca Ñomre ca euh, sëñ Ñomre Njaga Anta Diké bi nga xamante ni dem nañu foofee nag ci la Maroso moom dal di ñëw fi nga xamante ni bii mooy euh, Kajoor bi mu ñëwee Kajoor itam nag euh, dafa dëkkoo ku ñuy wax Ngóone ma Birima ma Thioub di doomi Birima Fatma Thioub ma Birima Fatma Thioub moomu nag mooy wayjuru e, soxna su tedd soosu nga xamante ni Serigne Mor seli ba mu demee salum la Lat Joor jox soxna soosu di soxna Coro Maroso Diop mu am ca Serigne Cheikh Coro Serigne Balla Coro soxna Xëri Coro ak soxna Aminata Coro kon euh, Maroso Diop moomu moom la ñu Serigne Malle wax ni moo yettul woon tama ji waaye mu mel ni tama ji demoon na ba doon yenti tama lan fu ñu jaar ba léegi jingo rek moo fi des sëñ Malle. waaw yenti tama la woon. ji gite la tudd. gite gite. benn mhm. ah law ba ko doon yett. Mhm. gite la tudd. Mhm. jann ji kura la tudd. kura Linguère ko yettalu woon mhm. jann ji jaar gala dañ ko daal léele mhm. buñ dikkee ba kajoor mhm. ñu tëgg tama ah, boo demee ba jolof nga tëgg tama ji nag ya topp nga andi kajoor nga andi fii ci kajoor mm, mm. jungo ak kura gite jaar ga kura ak jungo kura gite jaar ga ak jungo ah, mi nga xamante ni moo fi nekk léegi waaw jungo mi fi nekk ji Linguère la ko moomoon. Mhm. ji Damee la ko moomoon. Mhm. ji dañ ko daal léele mu yett tama ak tama jungo ji tama ji barget sàkkoon. lil mooy dem fekk jurug jàmbur. nga nga jël ko loolu moom kon dafa mel ni. Mm. Euh, am na lu ci euh, ndax bu njëkk danga daan ëpp nit doole songu ab dëkk mm. jàpp leen jël lël jur ga waaye mu mel ni. Euh, tama ji moom boo ko tëgee rek jur gi daf lay topp wala wala nu muy demee noonu. Ah, jur gi da lay topp. ah nga andi ko nga ñu ko yët ko dameelub Kajoor. ah kon. mu mu ko jëfandikoo. kon daa mel ni tama as ak lëf euh, tama akus lëf la woon ndax bu tëgg tama rek jur gi topp la kon am na lu nekkoon ca euh, tama yooyee. waaw léegi jingo mi nag dañ noo wax ni daan nañu ko tëggal Lat Joor lool nu mu demee. daan nañ ko ah, ah tëgg nañ ko fii ci ci ci ngiro. Mhm. boobu Alboury fi doon euh, euh, moo fi doon mbayal gañ si ñu fekk fa benn tamakat bu bu jógee Jolof mhm. amari faama mhm. borom jungo mii dikk ah ne yaayam mbamba fu dem booba sax bari na ñu fa dem mu bi muy mbamba mhm. maam malle mi yor moom mi nga xam ne moo yettal moom lañ jox moom lañ yettaloon tama ji mu di Malengiraan Malengiraan mm-hmm. sama ndey mbaam ba fu ñu dem ñu ne ko ñëpp ñëpp ña nga ngiro ngiro ngiro mm-hmm. ngiro Jóob mm-hmm. gànciri lañ fa lañ fay bu mbaayal maam maale door a fab tama ji ba mu dikk ba booba daanaka lu ñu jóg lañ koy jox ndax jolof jolof daal di jó jóge dem ngiro dem ngiro ba mu dem ba waa mbaam ñi bañ ko séenee dañoo daw gàttandu ko. Mhm. maam Malle daal di tëgg tëgg tama ji. muy jungam mi mi. Mhm. naan lu ñu yëkkati rek booba. ah Amary Fama moomee lañ koy may amari Fama ma maam Malle nag am nañu bokk ay doomi ndey lañu. maanaam Amary Fama moo fa jiitu ak tamaam. bàyyi ko jolof ah ah bàyyi ko bu doon tey dañuy wax ni eh, dañ doon feetal. Euh, euh, maanaam albeur yi. Euh, Jolof. moo doon feetal gañ siri. waaw moo ko doon feetal léegi nag benn tëggkat moo fa nekkoon bàyyi ko Jolof. waaye mu am beneen tëggkat bu nekk kayoor muy Malle Ngiraan. yoroon tama ji nga xamante ni mooy jingo. mu daal di dem ca feet ga moom it di tëgg. waaw ba mu demee. Mhm. waa Mbamba dina bàyyi tama ñëw na bàyyi tama ñëw na bàyyi tama ñëw na. mu daal di tëgg jox xar bi ko. Mhm. na ko ku ma wëggati kéwél ba mhm. del buus bay mi jof si. jolof-jolof yi a ah boo leen dee teralit ñun ñi nga xam ne boo ah boo boo mësaa di xeex dañuy noonu la nooy jiitu ca kanam mhm. kon nag mu mën ko boo wëggatee këwél ba mandi del buus béy mi jof si kon mu mel ni ma ngay léebu di wax ni <laughs> tëggkat bi bàyyi ko eh, eh, jolof ah. bu ngeen ko joxatee seen koom bii ak koppar yi. Ah. Ah, man mi jógee eh, eh, eh, kajoor itam nag. Ah. geesu leen ma. buusu leen ma ba ma tooy. waaw mhm. nee na dégg maam ba mu ko defee. Mhm. mu daal di ne sëq mu daal làmb poos ba ne sëq ba muy fukki sëq ak juróom. mu ko def loolu alburi. alburi. Mhm. daal def ci poos def ci poosu maam Malle. ah Demba wa kii Demba Waar door a jóg. la ko nag Demba jóg na ko na Mbamba maa leen di wodd piis ndima yi daanu. Demba War Sall moo ni. ah Mbamba maa leen di. wodd maa di wodd. Hmm. paas ah, ndima yi ah, ah, ndima yi ndima yi daanu. Hmm. piis ndima yi daanu bëcc bëcc bëcc. Hmm. ah mboolem ña nga xam ne kàngam ya àndoon Alburi. kenn ku ci ne dégg nga maam gi jóg. yëkkatiw yëkk ñii yëkkati yaari yëkk ñii yëkkati bañ ah yëkkati yaari yëkk. jox leen. Mhm. ñu may leen booba it ñoo nga xam ne dañ leen a jëndoon it. Mhm. mayoon nañ ko waa Mbamba. maanaam loolu lépp euh, Malle. ma ma ma ñu may ko maam Malle. maanaam loolu yëpp kon jingo mii moo. waraloon jungo moo jungo waral lool. Euh, euh, gàtt yaag nag yaag. yii mo ndimo yaag yëpp jingo mi ko waraloon. waaw ba mu ko defee Amari Faama ne Malle mee may doon ndax sama doomi ndey sama jarbaat ba ca Jolof may naa ko ko ñu may ko ko ci ci jungo mi. Mhm. Mhm. tëggal na dammel Samba Law bi moom mii jung waaw ndax kooku moo fi mujj ci dammel waaw tëggal na ko Samba Law bi xuree jëmbooj waaw di jarbaatub Lat Joor Lat Joor bi ñu ko tegee ci ndammeel gi ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar eh, toog na fi ñeenti at yoo xamante ni doonul dammeel eh, doomi ndeyam Samba Yaaya Fall moom la ñu waaye moom ak palam yàggul ay weer rek la ñu folli ko fal Euh, ki nga xamante ni bii ndeyam ak Lat Joor ñoo bokk euh, Ngone Latir Fall muy damel Samba Lawbe euh, Xureeja Mbooj loolu yëpp li tu li ñuy wax ni tubaab yi diviser pour régner dañuy boole ay bokk ndax Lat yor ak Samba Yaaya seen yaari ndey muy Linguère Debbo Sukka ak lim ak Linguère Lati Ngone Latir ñoo bokk ab sa moonoon jaxate ak damel Maysa Tend Joor kon euh, euh, maanaam Samba ba jarbaatub Lat Joor la moom moo daanu ci Tiwaawan juróom-benni fan ci weeru octobre atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak euh, juróom-benn nga xamante ni digganteem ak nijaayam Lat Joor ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre 1886 la daanu ca Dexle waaye booba yoratul woon ndombak ak tànku dammeelu Kajoor kon tama ji dañ noo wax ni tëggal na. damel yu bare bare melni ni kon ah. euh, sambalaw bi mo ci mujj waaw hmm. gankal mudu mu xuree ji it tama ji tëggal nako hmm ma hmm, duma hmm. xuree ji doomi bàyyi Lat hmm tëggal na Lat Joor ngoone Lat tam ji tëggal nako kon manam ginnaaw Lat nak euh, euh tam ji lañ ko indi mbamba ndax euh, tam ji tëggalaat na fi kenen wala tagal ah eh, ginnaaw Lat Joor rek maanaam bi dameel yi ndax eh, jingo bayiko ko rek wala tëggalaat na fi ah. eh, ñeneen. tëggal na fi ah, ñi nekk ci nguur gi di. Hmm, ah, ah Kër tëggal na Demba Waar. ah Demba waa Kër Demba Waar. ah waaw. Demba Waar. Uh-huh. ah tama ji dañ naan dañ tama ji dañ doon wax. Hmm. rek la daan hmm. Samba ak tama ji na leen. kon bi nga xamante ni dammeel amatul ñu jël Kajoor def ko juróom-benni province euh, mu doon ab confédération te euh, Demba War Sall jiite ko kon wàccal leen euh, jingo moom itam na mu doon tëggalee dameel ya noonu la leen doon tëggalee. tëggal ne laat Joor Ablaye Xaar ca Ñaaxeen. Mhm. dama ji am na lu ay weer. Mhm. yàgg na fa sama maam. Mhm. bàyyi doomi Màlle. nekkoon na nekkoon na foofee ci ñaaxeen. Mhm. fa kër Ablaye Xaar. Ablaye Xaar Diop wala waaw ah, Ablaye di ko doomi Lat Joor ah waaw. ma mhm. maam ma wuure ngiraan. bi mhm. nga xa mooy amoo mooy doom ju góoru màlle. foofe la nekkoon. Eh, tamit waxoon nañ ni biñ ko wax dégg naa ñu ni euh, sirub liguère bokk na ci liñ ko doon euh, euh, foore ndax loolu wér na wala déet. tama ji. tama ji xam nga ah, naaw ah, ah, naawtal lañ ci daan def. naawtal waaw naawtal. naawtal mooy lan leeral lu ko naawtal. Hmm. tama ji. Hmm. buñ ko fooree. Hmm. bañ ko fooree ba mu yegg. nga tama ji daaw tëgg xool la ñu ko mu pecc. buur la daa tëggal. tamay buur la woon. tamay buur la woon. ndax bargeeta ko sàkkoon. boo masaa boo masaa jóge fii di dem ci xare. ah, ah tama ji lu xort wax. da ngay bind ci poor bi alxuraan bind ci poor benn bi alxuraan boo demee ca boo demee ba jub xare ba nga të nga tëgg xam nga ñu pura ah, ak kalaw boo ko tëggee ki ngay xeexal aw fitam day dem naawtal ah naawtal kon mu mel ni moom lañ dafa tama ji li nga wax léegi ni tama ji du woon tamay njaay xool lañ njaay lañ mooy jeggi daje ci eh, penc mi rek ñu di leen tëggal ñuy fecc waaye kon euh, tama li ma ci tama ji doon <laughs> tama ji doon lël waaye tama ji tam kon daf doon xare ah, maanaam da doon naawtal di tiital ñi ñu doon <laughs> euh, euh, waa loolu dafa amoon ay ay sëriñ yoo xamante ni ñoo ko daan def ci tama ji wala déet ah oh, da daan dem ci kay ci sëriñ hmm. na ko damaa bëgg nga ñaanal ma ci sama tama ji hmm. ah, ah nga bindal ma ci loo xam ne hmm. fu mu dem am ndam ah sëriñ ba bindal ko ko. Mhm. mu ne ko poir bi nga bindal ma ko ci. Mhm. mu bindal ko ko. Mhm. ah mu daal di dem ci ah, ah, ka nga xam ne buur bu jigéen la. ab ah, ne ko dama bëgg nga dimbale ma. ah abal ma ser. ma muur ko ci ndax alxuraan da nga koy nëbb. boo demee bay xeex nag fa nga dem bay xeexi daa daa di koy muri daa daa di wuti wuti doon xeexe. boo boo ko boo tëggee tàmm ji. bu ko déggee ah, ah, ah, këfinam day dem aw fitam day dem. ah nga gañe ko. moo nekkoon ci tama ji. mooy kon li ma waxoon léegi rek ni euh, euh, tama euh, ji du won tama juy tëgg njaay xool lañ wala leneen waaye tama akus lëf la woon léegi nag. Euh, sëñ Malle. Mbacke bi mu fi sëñ Malle ngiraat mu mag ma. waaw moom moo fi bàyyi euh, tamaji. ndax tamaji boo ko xoolee euh, Lat Joor bi mu daanoog léegi téeméeri at la ak fanweer ak juróom-benn. Hmm. kon ñu jàpp ni tamaji moom lu mu laa di laa di war naa am ñaar téeméeri atam li ko manqué bëriwut wala war na ko mat. ah, ah ma waaw mbaa mu ëpp ko. Hmm. Hmm. ndax ndax mbaam ba Ah, a ah, ah, maanaam biñ biñ jógee biñ jógee Fuuta mhm. ba ñëw ba ba ba ñëw fii mhm. nga xam ne ñi ma la wax ñoo ñoo àndoon ñëw fi mhm. gannaaw ga ba ba ñoo mag ñoo ñee santoon ngiraan ba ñëwee fii dañoo daal di dem ci ci nguur googu sant Faal jungo moomo tam yooyu xamagoon ci ci paalin la daan tëgg jungo mi bergeet sàkk nag. Mhm. dafay fe daa daa daa eh, eh, ah, dafa fekk nguur googee. Mhm. maanaam ba tàmm yooyu këfin yi it. Mhm. ba tàmm jooju. muy dem ak muy dem mu yóbbu tàmm ci ci eh, bi. ndax ah, maaba sunu maam maaba. fii ci ndiiñ la des. ndiiñ ndiiñ soriwut mu ngi nii mhm. ba ba maanaam ah, mokk ndiiñ ak ndiiñ xanaa bokkul ndiiñ gi nekk ci wetu euh, Thilmakha ah, ndiiñ ndiiñ ndiiñ ndiiñ la maaba mbamba ah, xarab loor ba mooy fi ñu xeex mooy fi la jor xeexee waaw foofu foofu tama ji boobu yóbbu nañ ko fa ah kon xarab fa la maaba mbamba des xarab looro mi ngi amoon ci weeru janvier euh, le 12 wala le 14 janvier 1864 euh, ndax booba fekk na la jor duuma leen ci weeru décembre ba ca ngol-ngol tubaab yi dem jël arme yoo xamante ni dañ ko doon tere tugal ngir waruñu ko muy euh, euh, canométrage yi nga xamante ni booba kenn ñimeetu koo jëfandikoo foofu ci Europe moom la ñu indi ci xeex boobu nga xamante ni wax nañu ni reyal nañ fa la Joor lu toll ci juróomi téeméeri nit kon mel na ni xareb Lora ba itam euh, jingo mi fekke na ko. ah waaw jingo mi fekke na lu bari de. dëgg tëgg na tëgg na ca de. ah ngol ngol googu it. Hmm. Ah, ah ah ah tëgg na ci sunu ma sunu maam Tanor foofa la des. Euh, euh, moom ndax bi la jor di di di gàddaay di dem Saalum euh, tama ji da koo topp. wala boobu de tama jàng fi. kon kon ma jooju dégg mi xamante ni moom la tubaab yi faloon kon moom la tubaab tama ji doon tëggal wala. waaw ah, maa jooju tama ji tëggal na ko. waaw. Hmm. Ah, ah, kon daal ci gàttal tamaa ngi nii joo xamante ni tama ju yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg la. Euh, fi ñu ko indi ci dëkk bi itam euh, waaye nag bëggoon naa xam ndax euh, tëgg mu nekk maanaam dafa am ay galen dafa mel ni lu mel ni gajal de maanaam dama bëgg xam tamaji ban galen la daan tëgg. fura ak kalaw. fura ak kalaw. waaw da ah. hmm, daan tëgg de. fura ak kalaw xam dajal de hmm. waaye ñi daa tëgg tama hmm. xam nga ñun ñii léeg xam nga ah, Senghor. ak Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñoom ñëpp bu bu ñu ànd ak ñoom dañuy wax na gajalde gi jib gajalde gi waaye nag fura ak kalaw mooy gajalde fura ak kalaw waaw fura moom moom la daan tëgg boo masaa di xeex fura ak kalaw ngay tëgg maanaam galan bi nga xamante ni bii daal kon moom la jingo mi moomoo woon moo doon fura ak kalaw waaw hmm. waaw moom moom daan tëgg de hmm. waaw euh, kon euh, mu mel ni hmm. euh, li ma waxoon rek ni ab dëkk ngi ni boobu dëkku cosaan la. Mm-hmm. ndax léegi rek maa ngi dégg mu mel ni seq gi dafa bokk ci émission bi ndax sab na fi sab yu bare bare bare. Mm-hmm. dégg nga mbaam maa ngi noonu di ŋaax. Mm-hmm. boo xoolee ci sunu gannaaw eh, eh, permis nekk sunu gannaaw eh, liñ ko feteñee mm, def naa ni. Euh, ndaw yi léegi xamuñu ko ndax euh, bu njëkkoon péri xat la ñu xamoon ah waaye lii ab selen la ah ah, kon li ma leen doon wax ni fo ndox doon taa ba léegi boo demee dégg nga Cheikh ga moom ba léegi ma ngay participer ci ci émission bi kon euh, li nga xamante ni bii moo ñor seen chaine bi rek mooy aada ak cosaan ak sunu mbatit ñu di ko won Sénégalais yi ndax def naa ni bari woon na ñu ñu baree bari ñu umpale ni tamaa ngi ni joo xamante ni bii moo jiitu woon Lat Joor eh, na fi ay eh, ay dameel yu bari Lat Joor la mujj a tëggal tama jooju nag eh, tey mu ngi fii ci Mbamba Ngiraan wala Mbamba. Mbamba Ngiraan Mbamba Ngiraan kon mhm. sëñ male ah, waaw dafa mel ni li ñu ñuy cërale woon ci watu xam naa li ci des bareetut. Mm, waaw say kàddu yu mujj. Mm. loolu ñuy waxaat ndax li ma la laaj mooy. Hmm. Euh, gajal de googu moom ndax fi ñu toll moom danañ mën am danañ ko mën a am. yóbbaale ko ndax maanaam de ndax tamaa ngi fi. ndax moom jàppandi na fi wala déet. Ah. ndax bu fi tama jàppandi woon. Ah, euh, bëggoon naa. Hmm. nit ñi xam hmm. euh, lan mooy gajal de lu mu gàtt gat gàtt. tama ji tam bëggoon naa xam. muy muy muy jingo. ndax ñi ngi koy tëgg ba léegi. wala dañ koo teg nii rek. waaw maanaam de. leel ah, ah, dañ ko daan tëgg. man mi ma man mi maa ko daan foor di ko booleeg sama tama. Ah, doomam ji. ah moom. a moom daani ki bu ma masaa di tëgg sax baayam daan ma booleeg moom ma ànd ak moom. muy kan ci muy Moustapha Ngiraan mii. Mhm. moo toog nii. Mhm. moom daani ki moo war mom tama ji. Mhm. ndax baayam. a moo topp ci sama ndey. moom Moustapha mii. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. moom mii moom moom. sa doomu nijaay la sama doomu nijaay mooy. moo yor tama ji tama ji mooy sama sang. Ah. tama ji nag ah, ji nag. bu fekkoon ne nekku fi it. tama ji maa koy moom. ndax nit nag mën a alali baayam. ba alali ah! tama ji. ah sama tama. ndax ndax tama ji mën naa tëgg fi ndoll ba léegi wala mënu ko. tama ji moom daa andu tukki por por yi dafa naa mm, mm, mm, amut ni. waaye ah, ah xanaa li muy tëgg. Mhm. sama tama jooju ñu yet ma ko ma tëgg ko ci. waaw léegi ah. euh, euh, euh, sëñ bi nga xamante ni. Hmm. moom moo yettoon tama ji kon yaxub tama ji ak ak buum yi ñoo fi nekk waaye. Euh, euh, der bi saa bu bu bu bu bu bu yàqoo dañ koy defar wala. wala ba mu jógee ci Lat Joor ba léegi kenn defaatu ci dara. noo koy foor kay. Ah, man mi daa dama ko daa foor. ah da ko daan foor waaw waaye yax bi moom soppikuwut. déedéet yax bi soppikuwut. Hmm. ah waaw ndax xam na nag ah, tam boo xamee ne am am na lu lu jógee juróomi juróomi junniy at. Hmm. mbaa mbaa eh, eh, ndax juróomi at. Hmm. Ah, tama bu ko amee. fokk na tama ja meloon. fokk fokk mu wàññi ko. wax nga dëgg wax nga ah? dëgg dëgg. tama ji dafa yàgg dafa yàgg dafa yàgg. ah waa léegi damay laaj. Euh, mm. tama ji. Mm. Euh, ndax euh, gannaaw dammeel yi. Mm. am na ñeneen ñu ko daan tëggal wala xew-xew yi xew ñu di ko ci tëgg. dama ne ah, ah, Ablaye Tàkko. Mm-hmm. Cheikh Tàkko ci ci Thiel Maxa. Mm-hmm. dañoo fa bon tegu Madou Makhourédia teg ci. mu ne ko demal mbamba bu ko booy seet cosaan boo demee mbamba danañu la jox cosaan ba ñuy dikk tama ji ñaari pool yëpp dafa bënn ba mu bënnee xam nga booba sama nijaay mu ngi yoroon xam nga booba ah, bi mu saa di tëgg tama ji bay jënub la daan bokk ci wetuk ndey jooram bay jënub teew waaw teew moom mooy lan bay jën boo boo ko takkee bu ñuy xare boo yore tama ji di tëgg boo boo sox yi soqee mhm. boo tëggee tama ji mhm. bu ñuy fetalante day mel ni saxar soosu mhm. bal du la dugg mooy béjjën bi a ah, bu bu bu xare bi leebee nga mel na nga meloon mel ni dara dalu la tama ji la gàddu kon bu daan tëgg tama ji am na lu muy bokk ah waaw béjjën bi a béjjën lay lay takk nii ci wetu ndeyjooram gàllaaj la loo ah gàllaaj googu waaw léegi fii ci euh, fii ci euh, euh, Mbamba hmm. Euh, bu fi dafa mel ni dañ ma ni moom bu fi nit di dem kër jigéen buy sëyi dañ koy tëggal tama ji wala. waaw xam nga xam nga kii. Ah, Omar Diop moomu dëkk nu laaj euh, tëggu muduma xure yi gi. Mhm. nu daj fii ci penc ma. Mhm. dana tama ji lañ ko yónni. Mhm. ndax dañ na mbàmba cosaan la. sama jaay na ko. nit muntu sumi gàllaajam joxe. te tama ji gàllaaj li ci dëkk bi. ndax ah, ah, ndax bu nit dee jongo mhm. dañuy tëgg tama ji mhm. bu nit dee sii mhm. dañuy tëgg tama ji kon nag te nit ñun di ni gàllaajam di joxe mu ne daal wax dëgg yàlla Abdou Diouf ay laaj tama ji te buur lu mu laaj ñu war ko koo jox mu ne buur ko xanaa waxut ne da ngay dindi gàllaajam di ko joxe nu daal di wut jeneen tama jox ko nag mook tama je yem Hmm? denc seen tama yéen. Ah, ah. <laughs> denc jëngo. ah waaw. <laughs> kon nag loolu. kii di wax laa ko laa ko dolli waaw teg ngay wax. ah tegu Amadou Makhoury Dieng nga wax ni wala tegu ku mu doon. tegu ah, mu ah mu boo sax mën naa bañ. dañ na moom daal tegu. a ah, ah, ah, Cheikh Tako de ko a a na naa Wamar Diop moomee Ndakaaru la jóge. booba dañ doon wër. a dañ doon wër li tubaab di wax objet. waaw objet lañ doon jël ñu jëlee foofu ak ak teg. waaw ñëw nag mën na sunu sama Cheikh gi de ba léegi moom mi ngi. waaw waaw déglu mi ngi bokk ci émission bi de. li nu wax eh. damaa def daa yenu maanaam. waaw waaw waaw maanaam lii day wane cosaan ndax. Euh, ganaar euh, euh, njël la daan sap ah. neexul ba neexul mais dëkk bi wane na ni fii dëkkub cosaan la ah. kon ah. tama ji jéem nañ ci ba taay gi ñëwoon na ba ku fee jël waaye ngeen def seen i pexe ba léegi tama jaa ngi fi kon dama bëgg rek nga indi sa kaddu yu mujj bu ko defee nag ñu tàggatoo ak ñu nuy seetaan waaw fii de mbamba de moom yàlla mën na yéen ñi fi dikk mbamba de daaniki ku ñu mas ku fa mas a ñëw lu waay mas <laughs> boo dikkee boo dikkee Mbamba. Mhm. yàlla dina la ko defal. Mhm. ba fii mu nekk Sangoone Sall. Mhm. da daa bind soldaar. dafay wóyoon Mbamba. am na koo xam ne dikk fii ci Mbamba. di laaj borom dëkk bi booba Ndiaye Omar ngiraana moom dëkk bi. di laajub lempo. ñu ne ko dañ koy lijjanti. mu ne nañ mën a def dañ koy joxub lempo. a ah, ñu ñuy sokki ca suba sa ah, suba sa la la dem sagata. ñu ne ko folli nañ la. Mhm. kooku de muy ardo mhm. ardo soxal ardo. ardo la woon ah ardo ah, ba ba chef de canton la woon. chef de canton ah, mhm. kenn déggu jaraafi Mbamba it. kenn déggu ko. amut. ah ku ma bëgg dara. ci mbaam sama cameraman jëlal ma sama seq gi pour gars yi xam ni seq gi seq gi bokkoon na ci émission bi te moom day dañuy da di dama ko ñëw rek dama xamul rek ndax li nekk ci ah, tama ji ah, sëñ Fallu Mbàkke mu baax mi mhm. sama nijaay dem na mhm. ànd ak mër yàlla tàkku mhm. nee na bañ demee euh, kër euh, kii mm, mm, ah, sëñ sëñ Cheikh Mbàkke sëñ na leen dem leen nujji sëñ Fallu sama nijaay ànd ak kii bañ dem Mm-hmm. naa naa sëñ ah sama nijaay nee na nuyoog sëñ Fallou. Mm-hmm. na ko Mbàkke mu nuyonteeg moom ne mu ne waaw yi mbokk yi fu fu fu ngeen jóge lu ne Mbamba. Mm-hmm. mu ne Madou ma xuree jëlee nee na ma woon ab tabakat Mbamba lay dëkk mbaa Jolof. ñi ci def ñëpp nag dañu yore poor. waaye nee na ab tabakat Mbamba lay dëkk mbaa Jolof. waaw léegi nag mu mel ni waxtu wi euh, mat na dama doon laaj ndax gajal de moom euh, tamaa ngi fi joj bu doon benn galan itam euh, mbokk yi kon dañoo ñëwoon tey fii ci Mbamba Ngiraan wala Mbamba Njëgeej ngir wanale leen ak tama ji nga xamante ni tama ju yàgg la ñuy sant nag Mat Jóob Ngiraan bi nga xamante ni bu lii amee tey yàlla ak moom la ndax ci moom laa jaar Euh, mu boole ma ak euh, Serigne Moustapha Ngiraan ñu di ko sant moom itam moo njabootam mu jàppandal nu ko lool ba tax tey ñu déplacé wu ñëw fii waaye di sant itam sama góor gii di. Sëñ euh, Malle Ndaw <laughs> mi nga xamante ni bii li tubaab di wax spécialiste su tama mag la waaye. jingo saa bu masaa bënn moom moo koy eh, fort ah, waaw waaw sëñ ndax eh, loolu jàngal ngeen ko gone yi tey ba ñu mën a fort tama wala ñu mën a tëgg waaw gone am na ci xam nga tëgg mi tëgg moom mi ñu daan tëgg nag hmm? mag ñee ko yoroon hmm. man mii ah am na lu ma ci mën hmm. waaye gone yi ay yeneen tëgg la ñuy tëgg sëñ Alla Ndaw eh, ràññi ko woon na ci moom da ko daa tëgg sama sama oh. xarit la woon. mu mel ni mu mel ni eh, seen naa tama. waaw léegi nag eh, mel na ni tama ji ñëw na. Ah. ndeysaan sëñ male mag la waaye nag eh, nuñ ko wax xam denc boo sonnee jëli tey dañoo bëgg tey <laughs> mu ñëw ak nun ci ci ci Gajalde lii di cosaan lii di cosaan lool. Eh, jërëjëf euh, sëñ Malle euh, euh, li nga wax li ko li koy li koy li ko li koy li ma koy firndeel mooy bi ma déggee galen bi sama xel dem na ci bi may xale tertu yi daan am daarul mooti ba fa Momadou Dia daan ñëw wala lii la ñu daan tëgg eh, bon xaw ma woon lan mooy gajal de mais bi ma ko déggee rek ah. da dafa ma fàttali lu bare bare bari ndax tertu yi daan am mooy bi ñuy doog am indépendance les années 60 Euh, euh, lii tëgg nañ ko euh, Daaru Muxti ba tey mbokk yi kon li ma waxoon rek ni maanaam nit ki bu ma denc bu sonnee jëli tey gis ngeen sëñ Malle Ndaw mag la waaye indil nañu galan bi nga xamante ni moom lañ daan tëggal Lat Joor Ngoone Latiir daan ko tëggal mm, kilifa yu bare bare bari la ko dalee ci moom damel Sambalaw ba Xuree Jëmbooj ba ci la famille Sall maanaam kilifa yooyu di waa kër Demba War ñoom ñëpp dañu leen daan tëggal euh, galen bi kon li ma waxoon rek ñoo ngi sant Mat Diop Ngiraan mi nga xamante ni ci moom la ñu jaar ba ñëw ci sëñ Moustapha Ngiraan mu jàppandil nu ko sëñ male Ndaw ak waa dëkk bi yëpp noo ngi leen di sant di leen gërëm mbokk yi àndoon ak nun danoo déplacé woon tey ñëw fii ci Mbamba Ngiraan ngir xamale leen ak jingo mii nga xamante ni tama la joj am na lu mat ñaar téeméeri at kon mu doonoon seen mbokkum taalibe liggéey akoonu borom Daaru Muxti mbay Guèye Syll ma di leen sant di leen gërëm te di leen soññ rek ngeen abonné ci seen chaine bi nga xamante ni fas na yéene ànd ak yéen ngir dem ci gox yi ak goxaat yi xanaa di fàttali rek ni e, fii di Mbamba Ngiraan mi ngi bokk ci e, e, commune bu Loro ga nga xamante ni fa la Lat Joor xeexe woon la bataille de Loro waaye bokk ci arrondissement Sagata

taala kapoor ba ñi lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami abdu buukar